si sëñ góor dama ciy gis ay mbir waaw parce que am na ko hmm. ba ñëpp xam ko hmm. muy gis nga cadre Mame Mbaye Niang damaa bëgg ñoom bu fekkee ñi ngi may dégg nañ dikk seen bopp Mame Mbaye Niang ci boppam Mame Mbaye Niang ci boppam hmm. ndax sëñ góor gis naa boo xam ne day liggéey bu doy waar doy waar te faj ko ko moom gis nga boo ko jàppee ci ndiggam lay tàmbalee jàpp ay bëti boomam su fekkee ni may dégg du ñàkk boo ko seet ay nitam nañ ko seetaan nañ ko ko xamal liggéey bi seen buur ci bijjinu maanaam ci gémmuñu bëy lañ ko def te bañ koy def ci gémmuñu bëy bi dañ dañoo solal dañ maanaam dañoo jël téere bi sexal ko bëy bi rend ko ci rend ko ci rend rend ko ci loolu mm. ndax ngir lan waaye liggéey bi li ko taxoon a dëgg dugg mooy tëj làmmiñ waaye dinaa ñëw ci Ousmane Sonko sëñ Mbour Ousmane bu fekkee bëgg nañ mu jël réew mi mm. ñi ay nitam ñu ngi may dégg saraxam ba léegi defal ñu mm. ñu ngi def rek ay sarax yu ne mais ay saraxam ba léegi ak i sàngatam defuñu ko ndax Ousmane nit la koo xam ne faaw ñu samp ko ci wàllu kaaraange. jërëjëf mbokk internet yi buur a ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel ah di leen wax ramadan mubarak ndax ku ne xam ne ñun ak yéen ay at ngi ñu ngi ànd ci ay jataayu njëriñ ay jataayu xam-xam kon day yàlla bu ñu tàmbalee koor ci bisimilah rahmaani rahiim ñu ndokkal leen surtout les Sénégal de la diaspora kii ma toogal nag tey nee naa lii ku ma ko defal rek man buur doy nga ma muy suñu sa suñu saa seen xel ko góor yàlla nee naa ko mën a yow moom dem nañu sax ba léegi du ay sëriñ ak ay émission ay nangam mooy xam-xam bi mu yor daf ma doy boromi xam-xam yu bari seereel nañu ko ci xam-xam bi mu yor làmbatuwu ko déedéet lu mu jàng la lu mu xam la lu mu liggéey la lu mu nangoo sonn la ba noppi ay guddeem ak i bëccëgam lépp xam-xam la tey nag ñu seet si waat ko ndax fan yële am na lu ñu waxoon man mi am na lu ma waxoon waaye balaa boobu dañuy bàyyi sëñ mu rek si musa gaaña ngi lay nuyu di la ziar bàyyi la nga nuyoo gaay rek nee naa tey moom damaa xataraayu nee na sëñ mën naa ko mën naa ko garanti <laughs> aoudubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wajal kalaami rachidan wa mursida figari na ma xam sida buur maa leen nuyu baax leen jaar yéen nga xam ne ñu topp suñu suñu mag bi tey ñaanal ñëpp jàmm tey amaat mbégte bu baax nag mm-hmm. ci jotaat jotayaat jotaay bii mm-hmm. comme ni ñu ko defoon ci yëpp weesu mm-hmm. kon nag suñ buur ñu ñaan suñu borom wax jii wala jotaay bi doon jotaay njëriñ ci wàllu bi salaam comme ni nga ko baaxoo defee. Mm-hmm. asalaamaaleykum. keroog gis naa benn borom xam-xam bu am solo bu ñuy wax jaañ. ñu bari xam nañ ko. Mm-hmm. mooy feeñal bëre bu mag ñu baax ñi tëdd bétuwaar. Mm-hmm. di wax ci turu yàlla yi keroog ma dégg mu seede la seede bu ama ama am solo. ne ma musuma wax ci ñaankatu yàlla. waaye si Moussa Sène li mu yor lu wér la. xam-xam bu wér la. xam-xam bu jàmbaar la daal tagg la ci ay ci ay meloy xam-xam te loolu man mi yàgg topp jaan su TikTok musuma gis mu defal ko nit mm-hmm. waa xam nga sëñ Bakal Diagne moom dama koy nuyu passage di ko ziare bu baax moom ndeysaan mm-hmm. te xam ne di seere rek ne ñàkk kañaan la sëñ Mbuur mm-hmm. ndax xam bi ñi ngi ciy bari nañ te kenn génnul wax ndax wax moom moom waaye moom daa gore rek di baax tey wax waaye yàlla seere na ni ku ko ëpp xam-xam bariwul waaye nag wolof day wax ne buñ nee nit baax na dañ naa ba xam mbokk yaa ko wax. Hmm. ndax tey jii borom xam-xam moo mu a seere ci borom xam-xam. Hmm. te loolu mu seere ci bu ci moom la nekk waaye nag dafa gore rek. Hmm. waaye nag it dafa fekk it ka muy seere la muy seere mu nekk dëgg. ndax Sénégal fii moom xam nañ ne mën na laa bàyyi ku jub. mais mën ngaa def cent ans ngay def lu baax kenn du wax dara. dëgg la waaye bis boo lu toll nii tal fatara ñëpp daal sa kaw. te moom nag xëy na bu fekkee li mu doon wax du dëgg kon boobaa deg fii. waaye nag ñëpp ñu ngi may envoyé message yi dama envoyé vidéo yi moo ko ciy sant bu baax sëñ bu dugg di gërëm mhm. te di ko ci ñaanal yàlla moom tamit ndax loolu mu def yokk mu baax la rek ak ak feeñal ko wallaahi euh, surtout ci boroom xam-xam bu mel ni sëñ Moussa seen xel kom wax dëgg yàlla loolu mu ci seere ñun ñii sañ nañ ko seere mhm. nee naa man fooy nekk ci na bi boo ma woowee ci ay mbiram wóor na Cheikh sa Mbacké ma ma wax la ci mhm. parce que loolu laa xam ci moom mooy du sëriñ bu jafe du sëriñ bu bari pexe du sëriñ buy njublang du sëriñ buy lekk dërëmi jàmbur ba nopp mm. tëdd dina eh, léegi nii rek am na lu ko dal léegi suma kanam te mm. nit rek moo ko yóbbee waaye ak kersa gu mu ëmbal nit ñi mm. waaye itam yëpp xam-xam la ah. sëñ bi fi may tàmbalee mooy wàllu seet man li ma yéem nee li tax nag a seet nag man xam naa sëñ bi tey fekk ngay bind ab téer seet mm-hmm. ma ne kon ku yéemante yegg ci maqaam yi ak xam-xam bi jarul ngay seet <laughs> waaw xam nga seen dama la xam nga seet day buntu ñaan yàlla ndax seet mooy li nga xamante ni sëriñ bu ko mënul mënoo ñaan. Mhm. déedéet ndax xam nga li dox bu fekkee tàllal sa loxo ñaan suñu borom rek loolu ñëpp mën nañ ko. Mhm. bu fekkee dañuy wax àlla asraar ak ay usulam faaw seet mënu cee ñàkk. Mhm. ma bëgg rek ñu ràññee benn mbir muy seet dafa mel ni maanaam ni ñu koy waxee ci wàllu ci wàllu ci wàllu ci wàllu ci wàllu docteur. maanaam cinq minutes ci tawat. ndax fanaan suñu buur doomu aadama li may wax saa su ne am na ku ñëw ci man di ñaan mii laa bu ñëwee li ma ko njëkk bu ma ko xoolee échange daal gën a daal ñu faju man dafa am lu may wax dama ne maanaam wàllu seet man si am choix balaa ngay yëkkati sa di ko jox wala sa cinq cent mille yëkkati sa dix mille franc wala sa quinze mille fay seet ba li ma la wax bu la doy. li ma la wax bu la doy demal. te wallaahi si bari na jaam bari na këyit du nit dugal ay jafe-jafe bu nit nekk ma am ay jafe-jafe suñu buur bari na liggéey bu ñu di liggéey entreprise bi fay fekk ay sax doo ko téye moo tax seet si nguur ala kulli xaal nit ki balaa ngaa mën a ñaan na da ngay seetlu man de sama soxla amul benn mbir boo xam ne sëñ buur dinaa ko seet dinaa ko ñaante duma ko seet lu mën a doon. waaye xam a gars yi dañoo toll léegi seet foo xam ne nooy la ñu seetee waaye gisaguma ci ku ci bind téere man buur. waaw xam te man téere man naa ko fekkee. waa xam nga si téere bi. seene day tummam day li wax ne naan wax day tummam seene téere baa ngi nii mm. Mm. téere bii laa tuddee xam lu mm. téere bii boo xoolee fukki doomi ramli ak juróom benn yëpp atte naa ko ci téere ak juróom benn te doom benn doom bu benn bu ne atte naa ko ci biir fukki yoon ak juróom nga xam ne waxuma la lépp aaju nit ki téere bi ko indi dañuy indi aajoom indi la ay feebaram indi la wàllu tukkeem indi wàllu liggéeyam indi la ba pare teg ci ay saraxam nag ba pare teg ci ñaan yoon nga dama ko war a defal téere bi boo xoolee mi ngi nii mu tuddee naa ko yóbbu la xam nga. waaye yow ko nar a móol ba pare après joxal ko jaam yàlla yi man loolu moo ma jaaxal. moom kay mu toll a xam nga damaa indi woon téere bu tudd Nuurul ko jagle loolu si nga xam ne gënoo bëgg xam-xam te jot ma yutu leen ñu gëstu. ba fii may wax yow maa ngi jaamee ko wante téere bi jeex na bu lu ma ci móol daal du teg semaine téere bi nag bu ñu bari nag dama jàmbat ci wàllu seet ak xel mu nu jom xel rek maa ngi ci téere bi dana ñëw waaye seet moom téere baa ngi nii moo yóbbul waaye xam moom nag incha allah képp ko bëgg rek incha allah boo wootee ci numéro a di nga di nga a jàpp kon téere bi jeex na téere fi mu doon moom jeex na moom daanaka mool moo ci des moom moom mool doo nga ci des waaye léegi duulu dañu attewu duulu ci xam-xam mhm. yow mi taxaw la da ngay ñaan yàlla est-ce que boo yeggul ci maqaamam xam-xam le mhm. wala est-ce que boo ñaanul ba am lijaaba am nga droit ñaanal nit ñi moo tax ma ne sëriñ si nañu bàyyi caaxaan yi nañu bàyyi foy ñaan yàlla du ay caaxaan jaamu yàlla bi am ci yow yaakaar yëkkati alalam jox la ngir nga ñaanal ko yàlla te mu gëm ni ko ñaan yàlla lu am la boo ko mënta ñaanal bàyyi ko mu dem waaye lii si Moussa Sène di def ak li muy dundee lii mooy dëgg dëggi xam-xam ca daara ja jaar jaar fu mu war a jaar ci xam-xam gën bi jariñ nit ñi man mi fi ñëw tout le temps. saa ko fekkee ci tey jaam rek ci la ne waaw góor suñu saa loolu la li la ñuy wax waaw góor rek la ñuy waaw góor suñu saa. ba tey ci sarax. Euh, dama am waaju ma waxtaanoon mu ne ci Brésil. Mm-hmm. jamono yële mën nañ wax ni depuis décembre. décembre dafa am itte joo waxtaanee woon ak moom. Mm-hmm. cee jafe-jafe yu ma dund nga ni ko génneel saraxul nangam. Mm-hmm. xam naa mu defee nii. sëriñ bi gaañee yem. fan yi mu wala ne la sëñ bi kat te farata yitte yamalaal jàmbat problème bi dafa gën a yokk te effectivement deful sarax sax di wane taxawaayu sarax ni mu mel ci ñaan yàlla waa xam nga sëñ buur boo gisee saa su ne dama koy wax ñi may ñaan loo ma ne man Cheikh Moussa képp koo xam ne yàlla def na ma seexal la sëñ buur bu ma la digalee sax rek jëndal sax ndax man dama lay wax léegi gis nga sama seet bi caaxaan na ko nit ñi bàyyi gis nga waajur décembre décembre ba amee jafe-jafe ñëw ñaan doomam te boobu sax mu jafe-jafe dara xew doon mm. mi ngi liggéey ci entreprise bi nekk ci nekk ci normal di liggéey mm. doo ko seetalee génne loo ko sax na ko génne sax doo ko sàgg ne décembre ba ñuy dugg avril mu toog problème yi tàmbali am nga xam ne man ni ma ko waxee mën naa laa wax li nga xam ne weesu na si dund fukki at ci ginnaaw wax li nga xam ne ci ngay dund wax la li am ñëw fukki at sa kanam te lépp ci xalaat ku ne xal des na rek maanaam seet raw xaan yi rek jëmmi seet man li ma ca xam seet ra ëpp na fukki seet ak ñaar ndax téere bii ma bind ci wàllu seet sëñ góor du caaxaan dama bëgg seen xam-xam dégg ko man de dama dama bëgg seen si ñu a bëgg dimbali mm-hmm. mooy ñu bàyyi làmbatu bi ak tappalaatu bi ak waxee xel te lépp ñu koy teg mm-hmm. xam-xam lu am la man téere nii sëñ góor mënoon na ma cee bañ a fekk mm-hmm. mu ne mënoon naa koo xam ne bind ko même sama bokk sama njaboot waaye damaa bëgg jaami yàlla yi ndax damaa xam ne nit ñi dañoo sonn ndax sëñ góor yow jomboo saa ma defee émission ñi may wootee di kalaay mu ñu ëpp ñoo ëpp ñu lay war a ñaan lu wallaay dëgg ba billaay li si lay la am na sëriñ soo xam ne tey jii su ma ñu envoyé si ay nit da ngay rus sëñ bi dem naa dem naa ba gëmatuma sëriñ wallaahi dëgg la wallaahi sëriñ dem naa leen di jox sa xaalis ñu booleke la diwda leen jox loolu ñaanut lépp luñ la wax ci wàllu këyit ne di nga ko ñaan boo leen ko joxee pare nga jox te sëñ bi ñaan ci këyit dafa <laughs> ndax waxoon naa ko fi ma ne képp koo xam ne xam nga am xawi latif wallaahi lazim yi doo ñaan ci kër luy dox am xawi latif am xaw yi du turoo rek am na xasoon xas-xas déedéet du seize mille six cent quarante et un dong <laughs> waaye daa yoon moo koy jaar gis nga yoonu mooy assurance bi képp koo xam ci am xaw yi sëñ buur nga liggéey ko wallaahi xasim laa la wax nii ala kulli xaal këyit yéegi fa suñu borom dana wat këyit boobu dama ne sëñ buur mhm. loolu li ma ci wax du bari képp koo xamante ni kii bëgg ngaa mën wàllu këyit sëriñ gësul am xaw yi latif alxames yi képp ku ko xam wallaahi alazim mi doo ñaan bi balaa ngay gëstu da ngay am xam-xam wala wala balaa nga gëstu da ngay jàng xam sëñ bi xam-xam du ay caaxaan sëñ Moussa Sène hmm. da ngaa da nga sonn ci daara ñu sa say waajur toqil la ci daara wallaahi dëgg la sa dund gépp nga def ko ci xam-xam bokkul hmm. sëñ bi tey xoolal nopp ni mu yombee ak ni ci problème bare waaw xam nga mbiru noob moom li may jox gi nga sëñ buur noob man de sama noob lu mu lu yàgg yàgg yàgg du passé vingt quatre heures benn fan lu yéeme laa lay wax moo xam góor gi nga xam ne dafa bëgg soxna moo xam jigéen gi nga xam ne dafa bëgg boroom kër. Hmm. te sëñ buur man gis nga ba avant nopp di am sax bépp relation boo xamante ne yéen ay góor jigéen yéen a ngi koy dund te bëgg relation ba am mucc. Hmm. wallahi wasim mën naa cee def ñaan loo xamante ne benn ñu téere rek bu ndaw laa ci bind jox kenn dam ñaan mu tax ala ku laal sëy bi dina am comme daal ngay génn ak waa ji mu takk wala waa ji génn ak ndaw si bëgg koo takk bëgg koo takk ala kulli yomb laa lay wax benn téere bu ndaw laay bind jox la ala kulli xaal bu dee koy góor di nga takk soxna bu nekkee soxna di nga takk. mu lay neex mu lay nax mu lay neex mu lay naxari te benn li gën a garaaw mooy képp ku jóg ngir yàq say boobee ay mbiram dana yàqu moo xam góor la moo xam jigéen moo xam mag moo xam ndaw benn bi ci topp ci wàllu noog gépp góor goo xam ne da ngaa yor soxna mënu laa déggal wala alxasim yi laa la wax nii li ma ciy def du mat 24 heures soxna si baj baj yi soxna si baj baj yi wala gépp soxna soo xam da ngaa yor góor ndax am na góor ñoo xam suñu góor dañuy taxawal rek waaw dañuy taxawal sama lépp lu ñor yóbbu ko ci yóbbu ko ci yeneen jigéen lépp loo xam ne dañ koo am caaxaane ko gépp jigéen koo xam ne nag yaa ngi dund la mel noonu sa biir kër dépp ba nga déggee Cheikh Moussa léegi bis boo ko dundee tey dana neex hmm? waaw koo xam ne da ngaa yor kër mënoo am ci moom dara wallaahi xaajib laa wax loolu bu dakko tey tey dana neex bépp muur muur yoo xam ne da ngaa ne bitim ma ko lay dee ba gaay këyit hmm. sëriñ si di ci sa xaalis bu du bu leen ni soo ko amee tey tey la waaye tey ji ba nga dégg Cheikh Moussa léegi loolu saafarawu na ñëwal ñu jëf ci yow mu jeex. mu jeex tàkk mos xam. amul ma dem te ñëw. sëñ bi mhm. naan rab dafa jafe rab dafa mag waaye rab balaa koo fajal nit ki wala dindi ci nit ki xam ko day yàlla. waaye sëñ xam nga mbirum rab ala kulli xaalin ngi dénk sëriñ si nag ñu bàyyi xel dara gis nga am secret rab dong bu mu tax nit ñëw ne damaa am rab nga bind jox ko. Hmm. ñaata sëriñ nga dem seen kër fekk seen i doom nekk ay laaw. Mm-hmm. ñaata sëriñ nga dem seen i kër fekk seen i doom nekk ay dof. ñaata sëriñ nga dem seen i kër fekk seen i jabar wala seen i dara ñu wér. Mm-hmm. ndax mbiru rab. Mm-hmm. nañ ci bàyyi xel. rab sëñ buur balaa nit di ko faj faw day xam rab bii ban xeetu rab la ba noppi ndax rab dañoo baree cosaan. mbaa xam nga ne rab ni ma ni olof amee ay giir nit ñi dañu amee ay giir jinne yi noonu lañu amee ay giir. ay soo tukulóor. lépp laa la wax lépp ndax gis nga ahmar baraxan mësab mura sam yooyu yëpp kawak nga xam ne yooyu yëpp ay ay man li ma la mën a leeral mooy ay ay ay xeet giir lañ ci biir giiru jinne yi hmm. te kenn ku ne muloog la ci biir mulooku jinne yi ci biir ci biir buuru jinne yi léegi nag jinne ji nga xam dafa topp nit ki li ngay njëkk a def mooy jéem a xam jinne ji lan mooy cosaanam hmm. bu noppi te ma bàyyi xel ne faj rabi cosaan ak rabi taxawaal ñaar yu bokkul la ndax am na jinne yoo xam ne fi noonu da ay jinne yi taxawaal ñu doon dëkkuñ fenn dañuy taxawaal moo ñu am gis nit ñi maam gis nit bëgg ko dugg ko Hmm. kooku moom sëñ buur dindi bi matul vingt quatre heures wala ci benn bés buy dugg sama kër gi di di di leen te benn danaa leen li dama leen liggéeyal téere ne bu la ko joxee wala alxasim bu la laalatee day mel ne nit ku dëgg xali sawar ni muy mel hmm. comme nit xale sawar ni koy def man sama téere bu la ko takkalee képp ko am rat noonu guddi gi njëkk ca ngay tàmbalee gis résultat ci wàllu woowu ci wàllu rab moo tax sëñ buur dama ne nit ñi nañ xam ne rab day caaxaan hmm. waaye nag képp koo xam ne yaa ngi faj rab maa ngi lay dégg ngay tuur deret loolu maa ngi koy dénkaat di def di def ay sacrifice bépp sëriñ boo xama sax maanaam maanaam saraxu client mais yow sa jëmmi bopp dal def ay ñaam di def ay mm, pour aar yow sa njaboot sa njaboot boo ko doon def doo jug ci jafe-jafe sa njaboot dugg ci jafe-jafe kon léegi sëñ bi ñii di faj rab yi nit ki di wax mu mel ni jinne ji mooy wax ci moom yooyu am na waaye sëñ buur xam nga dama ko waxoon fii maanaam nañ bàyyi xel na faj rab ak yëngal rab du benn du benn de waaw gis nga gis nga am na jot yoo xam ne fi noonu sëñ buur soo ko ta tayee sa loxo bi tufli ko ci billahi li si lay boo ko tey ko am rab nag mu tàmbali yuux loolu dara di wax ay loolu yëngal rab loolu yëng boo ko tak faj rab loolu boo xoolee ñu ko daan def ñëpp nee nañ faj boo ba léegi ñi ngay di tey client baa ngay ñëw ba tey client gën a pla wax ne def moo xam ne ko daan fit faj rab nag mooy nit ki am rab nga ñëw tàggale ko rab bi rab bi may ko jàmm may ko salaam rab bi bu daan yàq ay mbiram nga fexe ba loolu dañ sëñ bi rab dina dina dina yomb loo góor ci lu wér a a dana ko téye parce que man fay dafa am ku ma oo wax ma lu mel noonu ne ma man li may sentir rab la mooy sama awra day dellu comme bu xale. waaw loolu loolu loolu rab da koy def te gis nga sax waxuma ne sax sa rabu nit kii waaye rabu coro si muy ànd sax mën na ko def. coro sala ndax fekkee gis nga jigéen faru bu góor lay mhm. góor faru rab bu jigéen lay am. Mhm. ndax jënd ju góor ji day gis jigéen ji bëgg ko sopp ko comme mag comme ko jëkkëram demee su ko defee da koy da koy topp su ko defee ne képp koo xam ne da ngay jug ngir ànd ak ndaw soosu moom day jug def def defaat si diggante ak moom Eh. loolu moo doon bu fekkee góor nga mu yàq say liggéey di la indil wàllu télé ñoo xam ne ñi ngi am soxna mais seen seen buur suñu tëddee ñoom balaa ñoo yegg ci moom seen mën yu te rab dëgg la am na ci góor ñoo xam ne suñu tëddee ba war a seeg seen rek coow tàmbalee am ñu tàmbalee coow bu tàng xol bu bon nga xam ne loolu uh-huh. rab bee koy def ba waaje finalement na mu koy jëfal deg naw sax du ko neex am na ci ñoo xamante ne day dem sax ba ci seen barabu liggéey kay dafay indi ay jafe-jafe ba nga xamante ne maanaam ñoom ci seen barabu liggéey kay faaw problème dafay tàmbalee duñ toog duñ nekk ngir lan rek ànd gi ñu ànd ak loolu moo tax loolu lu am la waaye nag loolu sëñ góor bu fekkee man si am choix une semaine ci laa koy tere dama dem ak mu rab bi a mel sëñ bi dama ne la rab ak fu mu a egg ci nit laa wallahi alazim du ma ko sànq du mat semaine waaye yàlla dee sàkk rab sàkk nit lu ci nekk wutal na ko aw yoon mhm. sama soir jamono jëlee am na lu am solo lu ñu waxtaane woon ci wàllu télé mhm. wàllu télé ba tey nag mu ngi gën a persister di gën a bari ci réew waa xam nga seen buur wàllu télé maa wax ne man si Moustapha maa ciy solution. Hmm. maa ciy solution ndax télé xeetu télé yi am yëpp bu mu ci mën a doon bis bañ tàmbalee jëflante ngay tàmbalee gis résultat seen buur. ak mu télé gi mën a mel ndax télé ñetti xeet doo nga am kii ab sakaraab dafa dëgërut bu jugee du dëgër. Hmm. am koo xam ne sakaraab bi dana dëgër waaye day gaaw a jot boppam ci wàllu sëy. Hmm. li wolof di wax sëyu ganaar kuy gaaw a daanu maanaam mhm. am koo xam ne nag maanaam sàkkara ba jub mooy par am koo xam ne sàkkara ba mënta jub ñett yi comme ci mën a doon bu ñu la xoolee ba xam ne lii moo ne ci yow ci saa si lañ koy saafara waaye man li ma jaaxal mooy surtout yéen doomi daara yi te ne daan ngeen ko réglé ci alxuraan man loolu moo ma jaaxal te gars yi jàpp nañ ni ay sunguf rek ay solution yi waaye man nitu daara ah. alxuraan daan fa yëti xanaa xamoo ne gis nga télé seen buur maa ngi ciy liggéey boo xam ne maa ngi liggéey ci ay xuwa yi nekk ci alxuraan xuwatul matin ak bëy billaay lii laa ilaaha nit boo ko naanee sëñ buur ñeent fukkaat ba ñeent fukkaat la ko nit dina am. 40 ba 40 ko naanee benn yoon sa dund li fekk amoo ñeent fukkaat waroo ko naanee doo tëddee doo gaaw jot sa bopp sa sàkkara du néew du sa sàkkara du gaaw daal te sa sàkkara du gàtt. Hmm. benn yoon ñaari yoon lu ko nit mën a naan ceeb dundam du ñett. parce que la ma wax loolu mooy mag ñi. sëñ bi daan nañ dund téeméeri at ak nangam. te te di am njaboot. waaw man loolu dafa jaaxal. te léegi boo xoolee gone yi ñu si gën a télé ay 27 am a ko hmm. nag loolu lu ci mën a doon moo xam nit kii gaaw bokk na waaye nag damaa bëgg gone yi ñu bàyyi xel ne masturbation baaxul nañ ko bàyyi. foowee sa sàkkara. waaw. Hmm. waaw foowee sa sàkkara maanaam maanaam ci góor ak ci jigéen maanaam maanaam mballu gi nañ ko baax. te goor gi dañ koy def jigéen dañ koy def. nañ ko baax ndax benn jafe-jafe doo nga lay jël ndax benn gis nga mbal bokk na ci ay mandargaam dana tax fi bët day naqari hmm. problème gis-gis day lëndëmal ak gis-gis hmm. te beneen buur dana nëxal am xel hmm. te beneen bii dana indi jafe-jafe tànk ndax say sidit day day day sidit te après boo bu yàggee def da nga dem ba tuur ndox pour nga téye ko day jafe waaye lu mu mën a doon fu mën a yegg ci góor man sax Moustapha Karim du ma ko traité lu mat ñaari semaine samay garab bu ma la ko tàmbalee jox ci saa si ngay tàmbalee gis loolu moom nit ñëpp bàyyi xel. muy lu ama am solo ñun ñuy teew ci kër gi di gis ñi muy jëflanteel wax dëgg yàlla clients yi ñun ñooy dalalaat suñu xel ci moom xam nga yi moom muñ du ñu muñal kenn. Mhm. su baaxee dañ naan baax na bu baaxul dañ naan baaxul boo lekkee seen xaalis dañuy wax waaye bu baaxee ñenn ñi dinañu am ngor. Mhm. ah buur kat day seen musuwaat seen noo ma gisoon day. ca teel ba keroog wax dëgg yàlla sama jëflante ak moom sant naa ci yàlla. te alhamdulilah yooyu ñu ngi koy ñu ngi koy jot ci moom. Mm-hmm. Euh, Simiswa fi ñu jeexalee actualité réew mi réew mi jàmbaar joonoon lool. arrestation yi bari na tey procureur génn na wax Ousmane Sonko nga tëdd sama municipal docteur Babacar Gueye jàpp nañ ko maanaam nit ñi dem nañ ba ci procès le trent minutes ak seen bopp. waaye nag sëñ Bour xam nga li muy njëkk a wax rek ci loolu. mooy sénégalais yi ñu xam ne réew mi ñun ñoo ko moom. Mm-hmm. te Sénégal gi benn bopp ki kii mënu koo xar ñaar. Mm-hmm. te li may wax saa su ne seen buur nañ bàyyi xel bu baax su diggante ak politiciens yi. Mm-hmm. ndax damay wax ne Ousmane Sonko mii mboolem yaakaar bu nit ñi am ci moom amoon nañ ko ko raw ci président Macky Sall. dëgg la dëgg la te anam tey fi mu mujjee Sénégal yi. kon bàyyi xel bu baax a baax a baax ci réew mi te it benn. réew mu réew mu démocrate la. loolu ñi jiite réew mi war nañ koo xam opposant yi war nañ koo xam. Hmm. yaa ngi dégg kon réew mi sëñ buur dara xaru fi lu jàmm ak salaam. dem na ba faral léegi yombatu fi sax de. sañoo too faral sa bopp sañoo too faral kenn soo saaga la soo faralee APR waa Pastef saaga la. mais est-ce que Macky sëñ bi ba tey am na am na ay jaaj. waaw déet Macky la xam nga fi noonu Macky Sall daa am lu may lu leeral ci moom mooy Macky maanaam bu ma soñoon génnam day rafet. am na nag ñàkkul ñu ngi koy ñaanal. Mm. waaye nag fi mu tey jii kii réew mi jox bopp nañ ànd ak moom. ànd geeg moom nag mooy lan mooy nañ ñaan suñu borom ndax réew mi du ma ne diw la ko yàlla jox du ma ne kee du ma ne Ousmane Sonko yor bopp du ma keneen. Mm. suñu borom moom ki muy tànn tànn ndox bu ne wala yàlla mu xayma allah. Mm. waaye nag nañ ñaan yàlla réew mi jàmm am fi ak salaam. parce que projet bi waaye nag projet bi nag na lu biir. léegi loolee nag danaa ko indi tey. te ko teel bu ñëpp xam ko muy gis nga cadre Mame Mbaye Niang damaa bëgg ñoom bu fekkee ñu ngi may dégg nañ dikk seen bopp. Mame Mbaye Niang ci boppam Mame Mbaye Niang ci boppam. Mhm. ndax sëñ gis naa ci liggéey boo xam ne day liggéey bu doy waar la doy waar la te fañ moom te liggéey gis nga boo jàppee ci ndiggam lay tàmbalee jàpp ay bëti moom mhm. su fekkee ni ngi may du ñàkk boo ko seet ay nitam dañ ko seetaan dañ ko ko xamal liggéey bi sëñ buur ci bijjinu maanaam ci gémmuñu bëy lañ ko def te bañ koy def ci gémmuñu bëy bi dañ dañoo solal dañ maam dañoo jël téere bi sexal ko bëy bi rend ko ci rend ko ci rend ko ci loolu mm. ndax ngir lan waaye liggéey bi li ko taxul a dugg dugg mooy tëj làmmiñ waaye dafa am yeneen mbiru ci loolu mm-hmm. kon nag li ma koy dégg moom moom maa mbay naa ci jëmmam ne wut ay ñaan ci boppam sinon bu ko defut bu jugee ci projet bi wallaahi lazim dootu baax te maa ko wax nga ne bu jugee ci projet bi wallaahi lazim bu wut ay ñaan ci jëmmam dootu baax maanaam dafay jaaree yàqu ba faw <laughs> maa gëm sa ndax ndax liñ ko ndax liñ ko liñ ko liñ ko sëf mm. ci xeetu gàllaaj ak si sëf ci xeetu fay coow moom jëmm te xamu ci dara mi ngi doxalee moom na ko ay nitam dimbali te loole nag li koy li koy li koy dind ay sarax kepp la waaye dinaa ñëw ci Ousmane ko sëñ bu Ousmane bu fekkee bëgg nañ mu jël réew mi ñi ay nitam ñu ngi may dégg xam ba léegi defaluñu ñu ngi def rek ay sarax yu ne mais ay saraxam ba léegi ak i sàngatam defaluñu ko ndax Ousmane nit la koo xam ne faaw ñu samp ko ci wàllu kaaraange waaw si wàllu waaw parce que dafa mel ni loolu maanaam côté boobu chaque jour fa lay fa lay amee problème dama ne la fa ñu hmm. samp ko ci wàllu kaaraange samp ci wàllu kaaraange nag dooy caaxaan gis nga samp suñ buur nit ñi dañ koy xam samp dooy caaxaan de hmm. bari nag ku naan damay samp damay samp damay samp samp dëgg suñ buur dooy caaxaan waaw diw de mën naa ko samp diw mën naa ko samp lay laaw kilifa kilifa dafa soxla ko samp xam nga rek rek waxoon naa ko ci commande bi walaay waxoon nga ko fii sunu karam de ñoo ngi fi woon maag duro ah, àndoon léegi nag la ma ko wax maa ngi koy feddi la wut ñaan ci jëmam defaraat boppam hmm. Ousmane so it Ousmane it loolu laa koy dénk mu wut kaaraange ci wàllu yaramam coow li bari na mais kaaraange gi des na bu baax a baax a baax coow li bari na mais kaaraange gi des na bu baax a baax a baax di ay kàddu yoo xam ni defe naa ni sëñ Moussa seen xel kom yéen ñu koy saan ak di ko déglu ak ñun xam ngeen ko sëñ bi la tàggoo. waaw sëñ buur tàggoo bu dul tàggatoo la rek tey ñaanal suñu borom taala ko taala sama dum doxaa suñu borom yàggal ko fi loolu tamit nekk wér waaye ñu ñaanal Serigne Cheikh moom Serigne Saliou suñu borom yàggal ko fi loolu tamit nekk wér waaye nag ni ma ko waxee rek te baax ko waxee muy képp koo xam ne yaa ngi nuy seetaan mbaa nga nuy topp mbaa ngay jëriñoo dara ci suñu xam-xam ñu ngi ñaan nga ñaanal Serigne Saliou suñu borom dool ñu ko fayal loolu ñu koy sàkkul ñëpp képp ku ñuy dégg suñu kàddu góor ak jigéen maag ndaw ndax te jii lépp luñ mën a mel mooma. wallaahi wallaahi. lépp luñ mën a doon mooma. Mm. waaye nag lépp lu baax ci ñun mooma leneen lu mel ci ñun nag suñu boppa waaye moom lu baax rek def ci ñun. Mm. kon nag képp koo xam ne yaa ngi dégg sama kàddu maa ngi sàkku ci yow fa nga nekk nga ñaanal Serigne Saliou suñu borom doolu ñu ko fayal. amiin amiin amiin suñu borom doolu ñu ko fayal ci zaahir fayal ñu ko ci baatin te it ñuy ñaan bépp aajo boo wax bépp jàmm boo xam ne suñu borom nar na laa wombat ba sama kër gi de sa aajo du ñu fajoo yàlla na la suñu borom wëlbati yóbbu lu fa sa aajo di fajoo ci barkeb Serigne Saliou loolu maa ngi koy ñaan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mu ngi noonu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu si Moussa Sène gis ni numéro yaa ngi noonu di daw ci suuf écran bi di ku accessible wax dëgg yàlla di ku neex a jot waaye di ku neex a jëflanteel fépp foo nekk ci àdduna bi ak fu mu a doon lépp lu ñuy jëflante ci wàllu ñaan yàlla daal la fekk te incha allah gëm nañ ni boo ko jëfandikoo incha allah di nga mujj fasante mu mm. ko lori ci mbaax ci woyof ak ci prêter l'oreille attentive mm-hmm. nangoo déglu client ba noppi di liggéeyal yàlla ci biir jaamam bi mm-hmm. kon mbokk yi li la ñu àndoon tey maag Doudou indi leen ko seen émission sur Bprod Média ak Bour Gueweul di leen jox dig daje seeneen jamono